internet yi safo di ñu seetaan ci suñu jotaay yi nga xamante ni dañ koy amal ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax tey nag ñu daal di ñëw fii ci Petit Mbao fekk fii koo xam ne si nii daanaka kenn dootu ko présenté ñu koy wax Abdoulaye Diallo mu Serigne Touba moom la ñu fas yéene àndal tey ci waxtaan bu am solo muy waxtaanu faj euh, wér-gu-yaram euh, docteur euh, ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñi nga xamante ni ñoom la ñuy seetaan. Seydina Mahfouz ma di la fay di nuyu say analo seen équipe technique congaane son équipe Guédiawaye info di nuyu mbokk yëpp di leen dal leen ak jàmm. Mhm. Eh, comme ni ma ko waxee waxtaanu xam-xam la waxtaanu faj euh, wér gi yaram dañ koy doore ak feebar bi nga xamante ni euh, mën nañu wax nii moom mooy ndeyu feebar yi muy ndoxum siti euh, mu nekk loo xam ne si nii lu sonal la askan bi la ñu koy joytu fu ne yow nga nekk koo xam ne si nii ku ci yàlla may la ndax mën nga ñu ñëwal ci feebar boobu nga xamante ni. doy na wax trop muy ndox mi si comme ni nga ko waxee feebar la bu sonal nit ñi feebar bu nit ñi xamut la aussi wala gën xam nañ ko sax mais xamuñu conséquences yi muy def ci nit te xamuñu ku ko am aussi il faut nga bàyyi yenn lekk yi siti nag ñëpp ko am mais ay degré la am na fu muy àgg day yàq say wee am na fu muy àgg da lay xasanloo am na fu muy àgg da lay jox ay ër am na fu muy àgg day yàq sa maniw même li ñuy wax spermo ndemal defi spermogramme mun a am doom siti tax na ngay am problème de spermogramme euh, c'est problème de spermatozoïde boo defee spermogramme mun nga am ci cette pathologie yi benn wala nga am ci ñaar wala nga am ci ñett pathologie spermogramme di nga ci gis bi ñuy wax azoospermie di nga ci wax di ci gis bi ñuy wax euh, nécrospermie hypospermie hyperspermie oligospermie asténospermie spermi yooyu yëpp siti day tax nga am ko euh, walax jaan yu manqué walax jaan yu faible walax jaan yu gaaw a dee euh, te nit ki war nga soxla minimum minimum je dis bien douze millions des spermatozoïdes pour mën a reproduire am na nag OMS euh, parfois day génne chiffre naan tantôt ñu ne 12 millions tantôt ñu ne la 14 millions tantôt ñu ne la 16 millions soxla bref nit daal war na am ba 126 am na ñu naan 126 millions de spermatozoïdes mais moi je contredis je di il faut 129 millions te foofu la mën a yem parce que yàlla léppam def ko ajuster def ko calculer. li may faral di naan Dieu on le connaît par la marche du vécu dans la contemplation. spermatozoïde nit mu ngi koy am depuis bu nekkee ci biir ndeyam deux jour lay def ci biir ndeyam atadu Karim yàlla dafa jël turam bi tudd Karim atad bi deux cent soixante-dix moom ngay def ci biiru ndey doo a judd mu jël alhamdulilah bi wala daalina amin amin bi alhamdulilah ba amin cent vingt neuf lay jox tu as droit à cent vingt neuf millions de spermatozoïdes pour mun am doom. bon pas pour mun a am doom mais tu en as besoin douze millions yi sax douze yi douze la ñuy wax parce que douze ci biir Fatiha bi douze mille moo ci nekk donc douze million nga war a am ba cent vingt neuf millions foofu lay yem euh, ku ne trois cent millions ku ne quatre cent millions da wax loo neex léegi siti day tax direct xam nga direct bi day tàng direct bi bu tàngee nag pour reproduction des spermatozoïdes c'est impossible euh, day tax aussi nga am faiblesse sexuelle waxuma nag impuissance sexuelle mais faiblesse sexuelle day tax aussi nga am arthrose parce que day wooloo yukk yi yukk mooy muqueuse liquide bu gluante boobu nekk ci diggante articulation yi siti da koy wooloo moo tax man du ma faj sperme du ma faj sperme fajuma siti du ma faj euh, arthrose fajuma siti am na ay jigéen yu taxaw ñu naan rab la c'est pas vrai c'est pas vrai siti dong moo leen tara am doom ñu ci bëri bokk soixante dix pour cent deret bi muy tàngee ba boo seeg sa jëkkër sa ndox bi day génn wa ilaa même bu jëg boo seeg sa jëkkër day mel ni ndoxam bi day mel ni beurre bu bu ñu def ci pool bu tàng day seey wa ilaa ngay ëmb muy tuur ñu ne daan rab la c'est pas du rab c'est pas vrai ñoom peut bu ñu leen faj siti ay reenu daqaar ay reenu dànq lañ lay jox loolu fajul siti ñëpp xam nañ ko wala ngay yéeg ci bus yi nga gis booy di jaayee garabu siti cent franc éviter ça ren kenn du ko naan da nga koy éviter parce que ren da nga koy dugal ci bouteille chaque heure degré bi di gën a fort mais déjà xam nga ne kenn dosewul garab bi boo ci am boo jaamee problème ren yaa rey sa bopp garab dosage la laaj garab mode d'emploi fusion ak niñ koy defaree c'est important ci garab moo tax ñu bëri ñemewuñu médecine traditionnelle parce que dañu naan gars yi xamuñu ni ñuy doser garab yi ils ont parfaitement raison parce que wootekat yi bëri nañu fenkat yi ñoo ci ëpp fajkat fenkat yi ñoo gën a bëri fajkat yi faj dañ koy jàng mais il faut nga am ci don képp ku leen ne nag dafa namp faj day fen faj kenn du ko namp dañ koy dañ koy jàng xam-xam dañ koy jàng xam-xam dañ koy jàng kenn du ko doon c'est pas parce que mon père et sama papa fajkat rek ma doon fajkat non c'est pas vrai namp namp faj fu mu am soyez sérieux quoi yéen di bi sa sala moo ëpp ñëpp yàlla bu bu bu ko neexoon ne jibril demal sa noo ko di ko falaat na sax wala mu sol ko alxuraan léegi-léegi mais dañ ko ne iqra bismi rabbika lazi xalaq attention nag gis nga iqra bismi rabbika lazi xalaq xalaqal insana min alaq iqra wa rabbuka al akram الذي علم بالقلم allama al insaan ma lam ya'lam cinq sciences yaa ngi nii cinq versets yi bu ci nekk science la <laughs> biologie ngi ci biir chimie ngi ci biir scientifique ngi ci biir informatique technologie bi ngi dox mu ngi ci biir littérature ngi ci biir tout est Dieu damay faral di naan même pi bi ñuy naan hypothèse la égale trois virgule quatorze c'est Dieu hypothèse qui est devenue une réalité 124 yalla envoyés la yàlla yónni mu dindi ci 314 messagers chaque messager est une représentativité divine yàlla 100 la jox jagleel doomu aadama yi 314 divisé par 100 ça te fait 3,14 autrement dit 22 par 7 mooy pi c'est les lettres avec lesquelles on a écrit salatul fatiha salatul fatiha rek ngay wér de léeg-léeg ba àgg yàlla divisé par les 7 versets de la fatiha ou d'une part par les sept jours de la semaine, ou d'une part par les sept circuits mobilisation de la Kaaba, ou d'une part par les sept cieux, ou d'une part par les sept terres, comprend nga tuwaa bi jox la fële azalaat alif lam mim virgule 14 14 bi jox la les 14 mois de li ilaafi Qurayshin ilaafihim rihlata shitaa'i ba saar bi jeex autrement dit mu jox la 1 4 1 et les cinq xadaraat xadara xaaxut laaxut naasut jabarut malakut wala boog le cinq prières quotidiennes tout est Dieu comprendre nga jigéen aussi bu amee siti wax naa la ko day perturber réglam d'abord avant que muy mu koy tere am doom wala di yàq ay ëmbam mu ngi dem sax ba huit mois grossesse bi day yàqu huit mois huit am na sax ñuy accoucher doom ji doo xam ne der bi der bi day day muy muy doom bi day dee kooku siti moo koy def il faut un très bon traitement booy traité siti bu bul traité nit ki siti ba siti bi jeex ci moom sinon da koy gaañ mu ngi mel ngay traité nit diabète boo moytuwul mu am hypoglycémie. donc siti dafa bokk ci nit su wala waaw te boo amee siti da ngay moytu ñett yi gerte la plupart na gerte lañuy gën a bëgg day jox envie lekk gerte wala maafe gerte lépp gerte la da koy bàyyi ak chocolat dangay wàññi jën wala nga bàyyi jën yi. da ngay bàyyi xorom guddi ci Gom City may naa leen ko may naa ko may naa leen boobu. d'accord eh, leneen loo xam ne si nii da koy da koy faj mu nekk loo xam ne lu doy waar la eh, ndax ñu bari dañuy jàpp ne feebaru judduwaale la feebaru deret la muy drépanocytose donc mu nekk. ASSS euh, bi yëpp dañ koy faj te benn hôpital moderne mun la ko faj moi je traite ça en trois mois. waaw yow rek laa dégg ci koo xam ne si nii nee nga mën nga ko faj. Abdoulaye Diallo Abdoulaye man rek maa fi Abdoulaye Diallo nag. man rek maa fi tudd Abdoulaye Younous Diallo. xam du ma laaj loo faje mais naa la laaj ci détail. bon AS bi say garab ay secret la. AS bi 2 mois mais SS bi moom mënul manqué 3 mois boo demee defaat résultat bi doo gis. drépano moom. de même boo piqué crise fois tu es la veille de de de la troisième crise. ci ñi ñi xam nag la wax moo boobu docteur yi ñoo ko moom. te ci sunguf yi rek sunguf yi sunguf waaw. garab rek la man man je fais de la médecine naturelle. da ngay faral di wax euh, app bi maanaam délai bi. bëgg naa sax ngeen filmer ngeen filmer sama magasin garab ngeen xam ne man caaxaanuma de. d'accord man usine laa yor de. nga ñëw ci ni nga koy ni nga koy traité maanaam parce que da ngay faral di joxe ay délai ay 3 semaines wala 4 euh, mois. non bii 3 laa wax. 3 mois 3 mu AS bi mën na wér ci 2 mois. parfois. trois mois ça dépend ci nit ki ci âge am ci durée aussi de vie bi keneen ki SS moom c'est à partir de trois mois am na ñuy dem nag ba six mois sax de traitement eh bien oui hein, j'ai même un employé là qui SS maa ko faja musul toog une semaine te du la <laughs> mu ngi fi di liggéey depuis koor ba léegi chaque jour il vient au chaque jour te du sonn te alors musul toog une bu doon wàcc ci seen escalier sax day feebar mu ngi fii sama liggéeykat la sama goro la. d'accord eh, ma fàttaliku ñu ngi ak eh, docteur Abdoulaye Diallo di fekk fii ci Petit Mbao eh, ci cabinet ma cabinet Ndiadiri donc mu ñàkk mu nekk ku ñàkk jot nag waaye tey ñu def le tout ba daal di koy am ngir fas yéene seq ak moom waxtaan comme ni ma ko waxee bu am solo leneen loo xam ne si nii tamit lu doy la ñu koy jaawale sax ak rab mu épilepsie. Euh, mu muy feebar boo xam ne si nii euh, yombul maîtriser daanu da ngay daanu euh, di def ay affaires yoo xam ne si nii daal yu doy waar. bëggoon naa aussi nga ñëw épilepsie épilepsie mënuma ko faj définitivement mais mun naa la calmer ba doo ko sentir. xam nga épilepsie moo wax ko ma jox ko ñii di faj épilepsie aussi dañ jaar ci biir bi déclencheur bi foofu la nekk. mu ngi mel ni asthme tension diabète lépp mu ngi ci biir bi nañu vidé biir yi rek borom dentane. épilepsie am na xam nga épilepsie dafa bari ay façon aussi am na ñuy ñuy daanu sax ñu foog ne épilepsie alors problème biir la man j'ai vu un enfant euh, cabre waaw cabre vertu ba mu am huit ans dañu naan épilepsie bi ma fàkk épilepsie un un mois je crois xaw ma quatre semaines wéerut mais euh, yaayam daf ma ne daan war na rek ma ne non non mu ñëw ma jox ko benn garab colopathie mu naan ko c'est fini daawatul ah waaw ah. foofu laa xamee nag déclencheur bi mu ngi ci biir bi te kooku franchement même man daf ma étonné xale boo xam ne bu ñëwoon ci man nag ndeysaan moom du rang yaay ji mu ngi fay di moom fu mu jaar dugg d'abord ci biir bi nuyu ma te dee toog sa di liggéey ak man et lii m'a aimé depuis depuis le premier jour donc dafa bëggoon man tamit te tenais vraiment à qu'il guérisse xam nga dafa am benn affaire nag kenn di ñëw ci man fekk saa aju di faju danga ko ñaan yàlla te ñaan naa yàlla je renouvelle ce ce duwaaw la képp koo xam ne bu ñu jëflante du wér yalla bu mu ñëw sama kër yàlla bu ñëwee sax nañu xuloo balaa ñuy jëflante buy toog tout de suite ñuy xuloo maa ngi koy ñaan ci barke sëñ Touba te maa ngi ñaan yàlla képp ku ma sëñ boolewul bu mu ñëw faqat xam nga man dama am lu ma doy te nit ñi di wër yëpp ci àdduna am naa ko man yàlla yorlu ma dara dara dara li ma ko ñaan yëpp may na ma des ñaar laa xamut gudd fan ak wér gudd fan bon ak wér xaw ma nag na ma ko may lii rek la ma desal loolu nag su ma demee ba am cent ans xam ne nangu nag wala nangu bu ma demee ba am cent ans xam ne nanguloon na ma loolu maa ngi ñaan yàlla nag képp ko aajam dul faju yàlla bu mu ñëw soxla xaalisam eh, leneen eh, tamit eh, bëggoon naa ñu waxtaan ci muy ab feebar loo xam ne si nii tamit lu bari ci askan bi la muy ballonnement di biir buy néew wala biir buy jël ngelaw Euh, tamit mu mën a jur lu bëree bëri bëri ci wàllu wér-gu-yaram euh, loolu tamit ku ci yàlla may na Mahfouz biir muy nit gis nga balaa yi dañu ne il faut se déparasiter une fois par trois ñun amuñu habitude boobu te ñoom sax li ñuy defar li ñuy déparasiter ay Versol ay Vermox man du ma du yooyu de man benn yoon ngay naan garab mooy bi ngay naan colopathie même chose lay déparasiter nit ñi boo ko naan lépp lu noonu ci biir bi day génn est-ce que xam nga biir bu tilim mooy indi hémorroïde je le répète mooy indi faiblesse sexuelle mooy indi éjaculation précoce mooy indi ndigg bu métti mooy indi tànk yu tàng mooy indi bët yu lëndëm mooy indi bopp buy métti mooy indi yu bëree bëri fat dënn buy fàtt mooy indi goitre mooy indi yu bëri biir la biir bu tilim mooy indi fibrome mooy indi kyste mooy indi trompe bouchée mooy indi yu bëri yu bëri yu bëri sànq ñu ngi wax ci siti même siti boo ko amee même baneexu say doo ko am en tant que jigéen biir mooy nit ballonnement noo koy nooy joxe nit garab ballonnement terrasse biiram ngelawal ak ballonnement bokkul aussi nooy nooy nooy joxe nit garabu ngelawal raxasoo am na ñoo xam ne bu ñu génnee ngelaw comme xaw ma sama wolof leerul ñu koy wax ci jiiba comme benn animal benn xaj bu dee fii ay xam nu muy newee mm. noonu la mel biir bu tini mooy joxe halitose mooy mauvaise haleine nooy fajee mauvaise haleine raxasoo biiru jàmbur biir mooy nit man sama secret faj yëpp ci biir laay jaar am na benn garab bu joxe quinze muy colopathie cinq garab la boo gisee benn da nga benn garab la alors cinq garab yi ñu nuroo parfum ñu nuroo couleur xamu man dofuma di jël mbuus di ci def garab lay jox ne la prise unique nga foog ne benn garab moo fa nekk mais boobaa sama secret laa la man dofuma am na ñi may commandé quatre cent chassés par mois six millions la ñuy fay quatre cent fois quinze mille. ci réew mi wala bitim réew. ñoom bitim Europe ay tubaab lañu depuis deux ans chaque mois même ci confinement bi dañ koy commandé je fais exprès toujours ci sachet bi lay nekk parce que xam naa dañ def recherche ba dee duñ ko gis am na ci benn garab boo xam ne fuuta rek la nekk fuuta kese kese kese kese la nekk fuuta suñu diwaan bi région de Matam kese la nekk xam nga garab bu gën a mën a may alal ci àdduna plante boobu benn plante moo ci des ci Sénégal Tambacounda la nekk benn pas daal mooy ñëw dafa kër garab la boo xamante ne boo koy jël da ngay woor la veille bi nga koy b booy dindi reen yi la veille la da ngay def da nga koy diw diw ñor il faut que suba si nga fekk fa mu amay fourmi fourmi yi bu dee fourmi yu ndaw la nga xam ne baaxut bu dee fourmi yu dijj la nga xam ne kii borom ku ko jël dina am alal bu dee fourmi yu ndaw la commerçant yi koy jox pour clientèle bu dee fourmi yu dijj la mooy nit ki mën na tëdd sax di am alal benn la benn paadaal moo fa samp këram ñamoo ko moom balaa nga koy dindi koy woor te jour bi nga koy dindi bi da ngay def taatu nen garab boobu su ma la ci defalee nii ñett yoon nga def ko ci kalaba sangu ci la xawla wala ko tëddal na law danaa nga laax jaay nag laa la man dama kaa dama kaa sangu de moo xaalis moo lay wut si yow doo wut xaalis xaalis moo lay wut si man balaa maa laax jaay laax lekk li may wax yëpp ci man sama bopp laa man man su ma gisee naaj daf ma neex est-ce que xam nga loolu naaj su ma neexee benn yoon laa ko gis ci semaine bi su may dem juma vendredi man juma rek laay génn wala di gunge sama jabar au champ wala di ko yóbbu restaurant pour bégal ko te la plupart loolu guddi lay doon balaa ngay jaaxal nga xam nga am nañu nit ñaan dañuy sang nit pour am alal wala bagg di jaay bagg pour xaalis yow xanaa ñoom ñu am bagg yi mënuñu am xaalis rek bañ a jaay bagg li ñuy dóor di lekk lu lewut ah balaa nga balaa ngaa naan et puis ci fi nga leen fekk dañ ko loué la plupart gis nga sëriñ dóorkat boo ñëwee néegam mat laa nga fay fekk doo fekk ay photo yu cher de xam nga tax dañoo pare bu ñu la daw nañu bu ñu la dóoree rek daw nañu te bu ñu leen naan na nga ñëw nag ay nit lañ la wax na nga ñëw de parce que xam nañ ne bu ñu la dóoree fajar dañuy fajaru dem balaa ngaa egg si kër gi ñoom sori nañ nga ñëw ci sëriñ mu ne la man na moom a xaalis di la génneel ay siwo di génne xaalis billaay dañuy fen moom ma wax la secret bu na ndooy baam sax def na ci benn émission wala ñi dem ci télé yi naan dañuy luxus nga tegal leen fi benn serviette wala kaa la ñuy naan ni di génne xaalis élastique rek lañ fi def dugal ci xaalis ay fenkat lañu rek. la ñuy dépensé ay ay ay ay luxus ak fétiche du du ci réew mi rek fétiche daa yàgg bëri xam nga man jàng naa ci ngangaay yi nganga féticheurs de l' Afrique centrale Gabon particulièrement nganga lañ tudd les féticheurs parce que Seydina Mohamed moo ne jàng leen même les fétiches jàng leen pour nit bu la fétiche nga nga fay dafa xaraam nag man pour man bu dee jullit nga gëm yàlla boo demee ci féticheur <laughs> xam nga déjà fi ngay dem rek yow moom tu converti ci weddikat yàlla yow moom dem boo ñaata moom bul julli dèjà même booy dem rek ci nit ne ko seetal ma rek yow na la leer na moom jarul ngay julli 40 jours yi wala di woor parce que yéen bi moom du fen nee na képp ku dem ci seet kat jours wala 41 jours boo ko boo ko boo ko jullee yàlla du nangu si julli même bu waxee dëgg bu waxul dëgg yëpp day fen kooku yéen bi moo ko wax yow ni ko xamante da ngay ñëw nga wax mu ne tudd sa tu tudd sa soxla xanaa moom xamul soxla bi mu laaj sa tur. xanaa seet bi du la woon tur bi te nee naa lu xaraam la ñuy def bu dee comme lu xaraam la ñuy def nañ def man ni ma doon def man bi may bi may seet noonu laa doon def dugg nu YouTube ngeen tapé mes émissions de 2016 avec Sega Pam de Kolda RTS Kolda dama doon tag en direct di joxe résultat pays bi. te ba pas résultat pays bi ak ak euro million sax. Mm. ba léegi mën naa ko mais. teg naa ko ci suuf nee naa la depuis 2016 lekkatuma lu xaraam dama doon toog billahi wallahi taala da déggul YouTube rek wala nga ngeen woo Sega Pam RTS Kolda wala yaa kan la qui directeur à l'époque kan te rakam nekk journaliste euh, sant kan euh, à la TFM année boobu san naissance journaliste boobu amoon na des triplés hmm? euh, dama doon toog un lundi ma ne demain mardi lii mooy gën a euro million jox leen cinq chiffres yi jox leen deux numéros complémentaires yi noonu laa doon joxee résultat super la loto Italie est-ce que xam nga man maa yàq euro million bi nekk Italie te pourtant foofu la jógee Corse yi ñoo ko inventé sa euro million la mais dafa am ku ma gañaloon mu jàmm ma yàq ko yàq euro million bi ba Italie amatul sax euro million super la loto ak yeneen ñoo fa nekk mais euro million toute l'Europe réunie Italie bokku ci xaw ma nag léegi parce que bàyyi naa ko ça fait quatre ans gëstu ma sax affaire bu demee noonu damay toog fii léegi la jox la résultat méga million amoon naa benn liggéeykat da doon jël sax sama tur page Facebook mu ciy dóor mu ciy dóor ay coups da doon tooy rek di naan moom mooy Ablaye Diallo euh, day jox résultat paier gars yi ko yónni xaalis dafa yoroon sama carte d'identité sax xam man sama carte d'identité ko defoon xaw photocopie en couleur boobu dafa yor may naan ana sama kii bii rek ndekete moo yor carte bi moom mooy da nga retiré ji tout le temps investir ñëw dans les années 2014 xam 2013 door na ci coups yu bëree bëri bëri ubbi page Facebook def sama tur mais yooyu dama ko teg de côté xaar dafa xaraam loolu dina dinaa ci dundal sama yaay dinaa ci dundal sama baay kooku boo ci dee sa diggante ak safara un mètre la nu ma koy doyee man damay liggéey pour tedd pour am ajana ci àdduna ajana seen liggéey jaamu yàlla man damay jaamu yàlla je sauve des vies liggéey gënu ko neex nga tëdd guddi xam ne tu as sauvé des vies drépano lu kenn mënu faj nga faj jabet lu kenn mënu faj nga faj hépatite lu kenn mënul faj nga faj ko maladie rhumatismale lu kenn mënul faj nga faj ko mais tu as la conscience tranquille man ma famille est fière de moi sama jabar bu ma xool day fier ci man samay doom bu ñu ma xool dañuy fier ci man je triche pas aw ma sens interdit fu ma neex dox fu ma neex dem je suis un homme libre et un homme libre pour moi c'est un homme qui assume ses responsabilités je n'ai aucune dette morale envers qui que ce soit je n'ai aucune dette financière qui que ce soit. Euh, ñu wax ci wàllum secret surtout ñi nga xamante ni euh, ay célibataire lañ góor ak jigéen euh, ci wàllum mariage maanaam secret yoo xam ne si nii nga koy baaxee askan bi ku ko def rek yàlla mën na la may nga am bu dee góor la nga am bu dee jigéen la tamit yàlla may la ca kër. gis nga yàlla li mu mënoon dem ba tey loolu la loolu la loolu la mën yàlla. bu nekk yàlla ba tey yàlla la yàlla boo ko ñaanee rek mu may la seetal nekkal un vrai jaam nga buur mu ñaan nga ñaan ko mu may la ci TikTok j'ai suivi un marabout là qui je crois vers côté Ouest Foire yooyu da ci joxe ay ñaan pour ku bëgg am jëkkër toppaleen ko yor na ci secret man bi ma ci yor par exemple rabba haada la xam nga lii laa fi Quraysh quatorze mois la lii laa fi Quraysh إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف رب هذا bi c'est pour mariage dafa rek li إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا رب هذا رب هذا رب هذا رب هذا رب هذا رب هذا cent fois البيت الذي أطعمهم من جوع c'est-à-dire nga àggali saar bi matin soir incha allah ci quatorze jours nga koy def nga am jabar wala nga am jëkkër boobu rek nga ci joxe mais bu dee nag jigéen bi danga am faru rab faju rab ba pare balaa ñu lay takk léegi léegi fase léegi léegi waaw waaw yi tas bari na ah. ñu ñëw ci secret xaalis xaalis euh, secret xaalis liggéey loo xam ne si nii moom déet bu dul liggéey loo xam ne si nii comme wax li gars yi ñoo xam ne boo sangoo yoo xam ne boo ko laalee yu mel noonu wala saar boo ko taree da ngay am xaalis ak yu mel noonu yooyu am na secret tamit yoo xam ne war ko mën baaxee sama classe nga xam ne parfum parfum may xaalis boobu sax il faut nga am xaalis nga jënd ko Jiki Gerlin Jiki Gerlin boobu bayre la boobu sëñ Macky Sall moo ko baaxee nit ñi moo tax nit ñi di ko utiliser boo ko laalee jarul ngay laal bayre incha allah day baax nga am xaalis cent et quelques euros lay jar bon mais xaalis da ngay liggéey il faut nga jàng base. base àdduna jàng la jàng rek mooy dindi pauvreté même fen jàngal fen ba mu mokk même sàcc jàngal sàcc ba mu mokk nga pratiquer ko man daal loolu laa xam liggéey am xaalis nit du bëgg lu yomb xam nga man nee naa la asra rek laa mën yor naa tabdil yor naa kimia mais du ko def daaw naa ko def nag tabdil borom xam-xam yi xam nañ li tabdil te man sama tabdil ci Ceerno Jibril bii añam gor laa ko jëlee tabdil mun nga def léegi-léegi dara nga am xam nga amoon naa sax bu tabdil quinze mille par jour moo xam ne benn papier blanc rek ngay jël nga di ko ñett yoon njaganaa ko boo yeewoo rek fekk fi trois billets de cinq mille trois billets de cinq mille am na sax ay téere yoo xamante ne da nga koy def fii rek deretu kii kàkkatar nga koy bindee def ci benn cinq mille wala dix nga def ko sa sa loxo ngay def nii rek cinq yi di génn loolu du dara mais yooyu seytaan la affaire seytaan la am na un gaa ñu léegi Youssou Ndour sax da koy woy kooku am na benn secret bu c'est-à-dire yooyu yooyu émission bi c'est pas important c'est pas important yow même la franc-maçonnerie xaalis la Rose Croix ñi ci nekk franc man dama leen maîtriser ñooñu dama leen xam parce que ki ma yar dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg du ma sax tudd moo doon le presque le représentant des francs-maçons en Afrique dama leen xam c'est pas la peine gars ñu ne ça va yal na yàlla euh, sa dalay ya xam dama doon faral di wax si y a un illuminateur Sénégal c'est moi xam nga les Illuminati xam nga leen douze lañu ñoom ñooy diriger les guerres ñooy fal président yi ñooy provoquer lu ne ci àdduna non bokkuma ci dama ne s'il y a un Illuminati c'est-à-dire seen réflexion ak li ñuy kii man la je vais vous dire un man maa ko njëkk ne Macky Sall mooy nekk président deux mille dix la maa koy ne maa ko ne woon bul political wat Macky mooy nekk prochain président ma ko sax kuy nekkaat président après Macky Sall. te ni ma ko waxee woon mooy gis saa si kooku fu mu nekkoon ba créé na parti am ba nangam ba nangam ba nangam est ce que xam nga même bi ko di dóor bi ñëpp di naan Sénégal mooy dóor en deux mille euh, seize janvier deux mille man kese maa taxaw Sud FM bu Ziguinchor à 17h ma ne képp ku ne Sénégal mooy doon Cameroun day wax lu ko neex match bi 0-0 la prolongation 0-0 tiro bi dernier tiré Sénégal mooy raté appelez Sud FM appelez Niass ne ngeen laaj ko. même mondial bi bi ngeen defee votre match vraiment bénéfique la premier match bi nit ñi naan waaw di gëm man leen doon dem fenn premier tour ngeen di yem j'ai di tous les matchs la trois matchs yëpp ma jox seen Gassama de Zik FM Ziggy Zig FM Gassama jour boobu maa ngi fàttali il était sur le balcon vers 28 mai demee seen match bi da ngeen koy ñàkk Sénégal sera éliminé dañuy dañoo teg dof mais c'est fini même gis nga même Coupe d'Afrique bi passé bi Sénégal bi Algérie doole Sénégal 1-0 dama taxaw ne leen wallahi billahi taalal kiraam laaj leen Ignace Ndeye mu ngi mu ngi won ci ci mooy ci kii bi ci Coupe d'Afrique bi maa ko message message yaa ngi fii DJ Thiat laaj leen ko ma ne ko. Algérie day dajewaat ak Sénégal final te 1-0 encore la di dóore je prends même di Kopi ñoom Babacar Camara ñoom ñëpp dama leen ne comme xam na ngeen Aliou Cissé ak papam ne leen nañ ma jox nañ man nañ ma wéeral 80 millions rek même a la cinquantième minute ma wëlbati carte gi j'ai averti 48 heures avant. kon mën nga ko parce que footballu ma de. ci wàllu ñaan. non waaw ñaan waaw ñaan kay. xam nga donc waxkat yi doon gis gisuñu dara man maa ne man depuis le premier match Sénégal Algérie Algérie door Sénégal man maa ne finale Sénégal Algérie encore qui osait imaginer ça qu'Algérie dina dajal Sénégal ma ne et puis encore lay doon bit bu rus lay doon léegi ma may leen temps nag boole ma gémme ba quatre-vingtième minute ma wër bëri carte yi xam nga donc j'avais vu le but avant avant les quatre-vingtième minute daa jël Ignace Ndeye rek xam nga dama tudd tur tudd rajo. jeex na mais y a des détails man du ma dugg ci biir te loolu xam naa ne man je peux pas la place de Dieu daf may dikkal daf rek man damaa mën a gis man xaw ma sama bopp xaw ma kañ laa gëj def ñaan hmm. listixaar du moins 2016 2017 laa les def 2017 la woon mars 2017 ma def listixaar di xool yàlla mais lan fan laa amee li ma yàlla may mbooloo bi ni mu ñëwee ci man ni may amee résultat ci li may faj am lu ma ne wirdi yi nga doon wirdi la ma ne kon jeex na lii du jeex fayum yàlla kay du jeex foofu laa gëj a def listixaar nga mm. xam na euh, li ñuy cëraloon ci waxtu daanaka li ci des euh, déjà euh, feebar rek moo ñu des ah donc ñu ñu ak yooyu ak ak ak feebar yi may faj yëpp ni ñu bëree waaw xam nga li ngay faj a bëri nag duñu mën a duñu mën a jukki lépp mm. ci benn émission xam naa du ñàkk ni jëm bi jamono dañ fi ñëwaat Euh, defaat ak yow ay euh, émission ngir euh, ba mercredi lañ koy faj AVC aussi ça dépend. mais mun nga am na ñooy wér ci benn weer am na ñuy wér ci ñaari weer am na wér ci ñetti weer. AVC da ngay faj AVC par exemple bu amagul yenn mois yi si c'est récent mun nga ko wér ci benn weer. am na ñoo xamante ne deuxième mois bi dañuy jëlaat AVC jëlaat nerf sciatique am na ñoo xamante pas nerf sciatique sax mais nerf tout am na xamante ne troisième mois dañuy fajaale nerf bi fajaale yax yi pour gën a dëgër pour mun a taxaw c'est un peu perplexe pour ne pas dire complexe voilà. la mais dañ koy faj. AVC aussi am na boo xam ne ngelaw seytaan la rek. waaw man boo booy def massage damay naan defal massage kon ne sa massage parce que aussi je ne détiens pas le monopole du savoir. ku nekk ak fi la yàlla may. colopathie colopathie nekk na bi nga wér que soit colopathie chronique ou fonctionnelle kooku moom yàlla moo ko may. colopathie moom lan la lan ah. <laughs> rek. Ah. parfois butit serre butit yi parfois constipation aiguë yooyu yëpp manifestation yi ngay di métti jox la hémorroïde jox la tout ah tubaab yi sax amuñu maîtrise bi xamuñu sax luy colopathie moo tax mënuñ ko faj man dama koy traité benn yoon ngay naan garab bi c'est fini 15000 ngay fay. 15000 man je dis mes prix à la nga ci yow mii <laughs> yóbbu naa la ardo bi ngay faj fi sa bopp bi du foofu laa jaar même bopp bu métti tout le temps tout le temps moo koy moo tax dama njëkkee lool ba pare le lendemain ma isnif la am na lu ma def sa bakkan ma vidé ba eh, xam naa fi ñuy sax gis ma may ci bopp bu métti wala biir bu métti hmm? mais nag da koy calmer du ko mais il faut maladie il faut gis nga suratu Shura am na neuf xaala yu toppante dans seen mim tilka ayatul kitab qaala firawna ma rabbul alamin qaala rabbu samaawaati wal ardi wa maa in kuntum muuqinin qaala liman hawlahu alaa tastami'uuna ba neuf kaal yi jeex boo ko bindee rek naan look ko nit rek boppam day wér man iñaanuma soxoruma ma wax la benn tuur yàlla baasitu la tudd baasitu dix fois rek chaque matin boo yeewoo pendant quarante jours successifs tu seras indépendant des autres kenn dootu la yor kenn dootu la may yaay mënal sa bopp bëggee kër boo bëggee kër ci lii laa fekkoon mu ngi ci at amahum kër lay joxe at amahum لإيلاف قريش إيلاف من رحلة الشتاء والسفينة رب هذا البيت الذي أطعمهم أطعمهم أطعمهم 100 fois matin soir boo àggalee boo defee 100 fois at'amahum bi rek nga def min juu'in wa min xawfin 100 fois da nga am ay kër pas ay kër mais ay terrain léegi nag boo bëggee xaalis boo ko tabaxee nga def Quraysh tout court Quraysh kese la joxe xaalis lii def Quraysh Quraysh Quraysh Quraysh Quraysh doo toog banque billaahi loolu ci secret xaalis yi maa la ko wax waaw comme nit ñi xaalis rek la ñu bëgg comprendre nga am na sax am na sax yoo xamante ne yére rek lay may chaque jour nga am yére bu bees achitaay achitaay bi ay yére kese da ngay bëree yére achitaay achitaay achitaay sans am na beneen doo manqué ration kër sa kër day fees dell ak ration mooy wasayfi wasayfi wasayfi sa gis nga yàlla i ñaanul soxla xoolal bu baax loxo bi li ilaafi qurashin ilaafim rihlat ashitaay wasayfi falyabdu rabba hada albayt alladi atamahum min juwin wa min xofin quatorze mois la bu ci nekk am na lu muy bu dee or sax bëgg nga ko ma wax la man moo la bu dee lakk yu neex rek nga bëgg ma wax la bu dee gagné concours ma wax la bu dee gagné examen ma wax la bu dee ba bëgg ay laadum yu bari aussi ma wax la mu ngi ci lii man iñaanuma ah on xamu turbulent dans ma jeunesse ñëpp xam nañ ko fuuti yëpp xam nañ ko ma dugg ci asrar def ci lu kenn defut am ci ñuy lu bari yoo xamante amuñu ko ci ma jékki-jékki bàyyi lépp parce que xamoon naa ne am naa don de soin man sama sama faj don yàlla moo def ci man ma dem jaamu ji yàlla def sama retraite spirituelle pendant sept ma ñàkk ndey ñàkk baay ñàkk xarit ñàkk àndooy amatuma kenn bëggatuma nee nañ dof naa gis nga mais tey amaat naa ñëpp def li Moussa defoon kër Shuaïb am foo xam nga nekkul kër Chouaïb lu dul posone bi mu doon lekk kër Firawna mu denc yaram bi ma dem na Kolda kër Adja Ñaañe Fall foofu laa jaamu yàlla ba yàlla nangul ma je la remercie au passage yàlla rek kay dëgg boo bëggee dëgg boo bëggee dëgg avoir l'esprit tranquille demal ci yàlla rek billahi dundal dëgg rek dundal dëgg bu dund leneen lu dul yàlla boo bëggee noppal bul iñaanal kenn wàññil sa dox wàññil say génn gis nga ñetti xarit ñoo am ki ngay rey ki nit nga ne ko rey naa nit mu ne yow ak sa problème keneen ki gunge la ba ci dëgg yoon mu fii laa mën a yem keneen ki mooy naan ku lay naan foo dee ma gis ñetti xarit yooyu ma wax ko tey kenn ki jabar la boo deewoon sax du la ba mel boo bëggee yàlla da nga koy moytu sinon boo toppee seen jël-jël yi ak seen string yi doo jaamu yàlla te yàlla guddi lañ ko amee da koy moytu àndandoo yi jouer scrabble damier di wax lu njëkk fay du kenn xamul xam nga kii du la gunge bamel ñii dañ la yóbbu ba gas suul la boo tichelee sax bamel sax duñu la gëstu dañuy daw ñii jaruñu ñii ñooy ñi nga xamante da ngay dem ba ci dikk yoon bi ñooy fii dañu mën a yem beneen xarit boo xamante ne foo dee mu dee foofu mooy say jëf say jëf nañu doon sa xarit wala déggoo ma eh, xam naa bii la ñuy jeexale mooy li nga xam ne si ni moom daanaka euh, comme ni ma ko waxee euh, ci mag ñi lañ ko gis mais léegi bëri na ci xale yi trop trop muy wàllum télé eh, télé nekk naa feebar boo xam ne si ni bu complexe la ñu bëri dañ koy am di ko doxalee am na fu ñu koy jooytoo. xale yi xam nga xam nga xam nga lu tax xale yi di télé. Hmm. masturbation mi ñuy def. koo gis mu ngi jël loo loxoom dugal ci tuguyam loxo dafa am tooke. tooke boobu day yàq ngóora de un déedéet seen yi ngeen jël naanaa rek daf ko ci baraade muy bax naanaa kenn du ko baxal day yàq ngóora de trois jigéen yi seen kibma ji day rey góor doo leen raxas seen biir yi te biir mooy góor biir boo ko raxasul même sa sexe day dem da gën a ndaw rek waxuma nag am naa garab ba guddal sexe bi awma ko da ngay raxas biir bi nga bàyyi booy raxas biir bi même sexe tuyaux yëpp tuyaux sexuels yi day day day raxasaale après day ñëwaat ndànk-ndànk ndànk-ndànk góor biiram la dal leen raxas biir ngeen bañ a nay garabu keneen boobu boo koy jël dara du la jot am na ñoo xam ne dañoo muusa muusa muusa sa par dañoo abonné chaque deux mois ñu jël benn am na ñoo xam ne benn mois bu am na ñoo xam ne par trois mois ils sont très parce que gis nañ ci njëriñ nag nee naa la rétrécissement sexuel éjaculation précoce retraite euh, kii impuissance fébrile ak faiblesse sexuelle yi yëpp trouble érectile cinq yi benn bokk bu nekk ak sa garab man su ma la jox garab mu wóor a du ma la jox aphrodisiaque boo xamante ne benn guddi rek ngay naan mu jeex déedéet man dama lay fajaale lépp fajar fajar de organe masculin bi yëpp laay defar ba defaraale canal déférent bi épididyme bi vésicule vésicule séminale bi yëpp laay defar mu ngi mel ni prostate xoolal boo ci mënta am laa wax bu dul bu góom bu góom moom il faut maximum il faut minimum quatre semaines mu doog a wér te boobu ngay dem hôpital ñu ne la cancer prostate nga am et c'est pas vrai du benn cancer góom bi la rek ñëwal ma faj la prostate bu sew la lu bëri traitement quatre semaine la deux semaines nga ne alhamdulilah sama benn xarit docteur nag de san monsieur Samb docteur Samb mu ngi euh, Saint-Louis nee yàlla day naan deux semaines de traitement man je cinq jours kooku moo taxoon fii publiquement mu ne ñun bu ñu la fajee lii wala ñu opérer la mocc nit ngay doon kii kenn mënu ko faj voilà docteur bu iñaanul xam nga iñaan bi mu xewee borom xam-xam yi ñoo ko jël moo tax sëriñ boo gis dafay iñaanal benn sëriñ bi moo tax fajkat boo gis day iñaanal benn fajkat bi man nag awma temps rivalité ak kenn man man taluma leen sax man sama patient yi laa tal man dama am lu ma doy li may recevoir ci patient rek quatre heures du matin dañuy commencé feesal kër gi nga yeew nga jàkkal ak mbooloo mi ci balcon yi nga dem ci kaw nga xool caméra yi kër gi partout dafa bëri ay nit nga xam ne yow am nga sacerdoce ñii bàyyi seen kër kilifa yi ñii jóge fu ñii ay kilifa lañu ñii ay yaay yu baax lañ ñi ay baay yu baax lañu bàyyi seen njaboot quatre heures du matin ñëw fii di xuus ci ndox mi ci taw bi boo yeewoo boo jàkkaarloo ñu da ne eh am naa soxla amul loo dul ñaan yàlla dul yàlla seen aajo fa yàlla bu booleen gàcceel yàlla bu yàlla tas yaakaar waxtu bi xot nañu li ñu cërloon ci waxtu bi daanaka jeex na dañ lay bàyyi rek nga daal di euh, joxe sa kàddu bu mujj wala loo xam si moom mooy tàggatoo jërëjëf Serigne Touba wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin